abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay l'observateur mi dul umpale lu bari mi ngi ñu wax yu bari ci xewoon ci ndaje mi doxoon démb ci diggante président Macky Sall ak waa këram yi di APR pili yéene kay bi ca palais de la république fa la président de la république convoqué woon secrétariat exécutif national bu APR bi mu njëkk woon démb l'observateur mi ngi ñuy wax ne war naa gisewaat ak ñoom fii ak fukki téléphone waaye laata loole dina daje ak leader yu benn bokk yaakaar yi altine jii di ñëw l'observateur dem ci ba di ñu xamalit ne démb ca ndajama ba ñu ubbee liste ngir xam ñan ñoo bëgg a doon candidat am na ñaar ñu ci bindu mu di Abdoulaye Diouf ak Abdoul Aziz Diop le témoigne nañu waa APR nee nañu Macky ñoo ngi ci sa ginnaaw koo ñu tànnal ne mooy candidat parti bi ci élection présidentielle ci ginnaawam la ñuy topp Vox Populi nañu du candidat parti ne amul ay décision yu mag yu tax ñuy wax yu tukkee ci ndajam secrétariat exécutif national bu APR bi woon démb li ñu doon xaar mu di président Macky Sall wax kan lay choisir ne candidat loolee def ko li mu def daal moo di sàkk ci gaay mi ñu dakkal fantasiro bi xiiroo beeg ŋaayo bi te booloo gën boole seen bopp ci Benno Bokk Yaakaar yi ñu tënkee woon ci dialogue national bi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne gouvernement bi jëmal na ko démb la woon ba ñuy def ndajam conseil des ministres projet de loi bi jëm ci modifier code électoral bi nga jëm assemblée nationale xibaar bi ci soleil national di ko dëgg dëggal yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal mbir yi léegi assemblée nationale moo ca des réew mi quotidien gis ne modd fas sarak la ko def le mandat mbir yaa ngi tàmbalee xeeñ ci kii di ak Khalifa Ababacar a jaar ngir régler a bokk ci élection présidentielle yii di ñëw ci ndajem conseil xambin ne waa Benno Bokk Yaakaar li ñuy ragal moo di ñoom ñaar di Karim Wade Khalifa Sall bokk ci élection yi far doon ci ñoom ay adversaire yu leen mën a sonal maire bu Médina di Bamba Fall ci waxtaan yi mu xëy def ak journal Les ko ma nga fay dànkaafu kii di Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ñoom ñaar Bamba Fall ne nañu def attention ndax bu lépp jàllee ngir ñu mën a taxaw di laaj réew mi bëgg doon candidat il faut que ñoom ñaar dañuy wàccu ak fisc bi kenn ki mu di Karim Wade Walf Quotidien nee nañu ko yóbbu sóor ko ndax mi ngi def kémtalay kàttanam ngir mën a mottali yéeney bàyyam Abdoulaye Wade mu di jiite kii di Macky dafa mel ni mbiri soofu ndax ñoom ñaar mu di Karim Wade ak Macky Sall daje monde ba bu yàggul it daje nañu ca màkka ci ajug ren gi ren ji waa pastef ak yoon ñàkkul ci ñoom ñaar ku ca war morom mëtt koo wàcc kilifa parti pastef gi mujjee daanu ci loxo yoon di biram suley jóob libération nee nañu ci sûreté urbaine fa la fanaan démb démb ci yor yor gi ca la ko convoqué mu dem ñu garde à vue ko yam wax ci sûreté urbaine moom président groupe parlementaire yeewi askan wi libération mi ngi ñu koy yegg nee na dafa juum erreur de communication la def journal bi nañu bi def na ab vidéo di ca ñu tëye ko ba jël ñeenti tuuma gàll ci ndoddam source Birame Souleye Diop président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi procureur bi moo joxe ordre ngir ñu jàpp ko ginnaaw kàddu yi mu yëkkati teg ko ci kaw président de la république. ci suñu chaîne YouTube ngir